jégalu ci yéex a tàmbali gi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu dal leen ak jàmm ci xibaar digg bëccëg li ci gën a fës. mu bokk ci Déthié Fall mi nga xam ne léegi la doon dajeek ñi nga xam ne ñoo di taskatu xabaar yi moom nag fësal na euh, li nga xam ne nii moom mooy euh, taxawaayam jëm nag ci jàppal tànk ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko kon nag euh, jóge na ci li nga xam ne moo di coalition sàmm sa kàddu ci kanam tuuti nañ ñëw ci ni mu gën a yaatoo ci li nga xam ne moom la fësal la ba tey ci xibaar ca Tambacounda li nga xam ne nag moom mooy ab unité pastorale maanaam daal ab bërëb boo xam ne nii daañu ko mën a yaatal ngir jur ga di fa mën a ñëw di fa lekkee loolee nag la ñu fas yéene daal di taxawal di projet bu Thiès Sud bu Bay eh, Daare bu eh, Sodagri ñoom nag daan nañu gis ne daal dina andi eh, li nga xam ne moo di jàmm ci diggante ñi nga xam ne ñooy yi ak baykat yi ndax nak ay sàmm yo xam dañuy faral di dugg ci tooli jàmbur ba fay indi ay coow loolu la ñu bëgg daal dakal dakkal ñu wax nag ci njàng mu kawe mi ñi nga xam ñoo di enseignant vacataires yi ñoom la leen naqari jamono ji moom la ñu fësal ni ki démb taskatu xabaar yi nee nag na sëkk ci ñoom ci euh, daal li nga xam ne noonu la ñuy liggéey ak ñoom lu ñu bëgg mooy ñu recruter leen jox leen ay salaire ñu nekk ñoo xamante ni daal ñu euh, taxaw lañu ci seen place ya ñuy euh, liggéeyee ba tey ci xibaar ñu wax nag ci li jëm ci droits humains des femmes juristes yi li nga xam ne nag taxaw nañu ngir amal li nga xam ne moo di kon ab bilan ci soxna yi nga xam te ni ñu ngi leen di def nag sa noonu ci célébration bu cinquante ans d'existence bu boobu lépp doxalin ak taxawaay bi nga xam ne ñoom jigéen ñi yëngu ci wàllum yoon daan nañu ko amal lii daañu ci euh, toftal yeneen i xibaar yëkkati jotaay bi ñaanalante Déthié Fall daal dina jóge nag coalition sàmm sa kàddu daal di nag dem jàppal tànk ki nga xam ne moo di koon Ousmane Sonko fan yëpp ñu ngi ko doon ruumanaat tey nag toog na jàkkaarloo taskatu xabaar yi daal di fësal li nga xam ne moom moo di taxawaayam ak eh, li mu fa yéene def ci les kon législatives moom nag Déthié Fall daal dina fësal ne daal lu ni mel lu waroon a mën a am la ndax nak naka jekk eh, dafa mas a ànd ak politique bi nga xam ne nii moom la nguur gu yees gi daal di teg ñu teewlu kàddu yi Déthié Fall mi nga xam ne dénk na ko suñu naataangoo eh, Mame Awa

ni loolu motax ma dugon ci coalition motax may dellu fi, qui ci devant les Sénégalais ni comme waxtan Bobo am à partir d'aujourd'hui j'ai décidé avec le parti et la ci parti boobu si wala si coalition bi nga xam ne si la bokkoon koko jiite nag di Barthélemy Diaz moom it daje na taskatu xabaar yi ni ki di yëkkati ay kàddu yu ñagas sax jëm ci euh, li nga xam ni moom mooy euh, ci nguur gu yees gi ak ni ñu doxalee moom nag nee na daal ni réew mi doxee jamono ji euh, moom du ko seetaan wala ñoom duñ ko seetaan benn yoon moom Barthélemy Diaz nag daal di ñaawlu doxalin bi nga xam ne moom la ñu def kii di Bougane Gueye Dany nga xam jamono ji nag mu nga ca kaso bu Tambacounda gis na nag condition yi nga xam ne moom la fa nekkee jamono ji euh, jot na nag ñu daal di ko jooyanti xool bu baax a baax lu ni mel ñu euh, teewlu ay kàddoom yemu dénkaay si Touba. am na benn waay mooy ku ma wooyee Mimi fu muy juum dafa jàpp ni politique ak menu restaurant c'est la même chose moom dafa bëgg tànn ku muy jàkkaarlool bëgg a tànn euh, ñuy bokk ak ñu dul bokk dama ne duñ doon xeex démb ak bërki démb loolu la ñuy continuer waat di xeex nee naa que lu tubaab di le mensonge mën na jël ascenseur dëgg tubaab di ko la vérité mën na jël ay escalier te yàgg-yàgg dëgg dina egg à port et à destination kon Bougane Gueye arrestation Bougane Gueye Dany na ngeen ko déggee noonu c'est une prise d'otage pour amputer à la coalition Sàmm Sa Kàddu la participation d'un de ces éléments clés à la campagne pour les élections législatives parce que nous, ngi une stratégie pour déstabiliser la coalition sans il peut gagner une bataille il peut gagner des batailles mais il ne gagnera pas la guerre ça je peux vous le garantir il ne gagnera pas la guerre te ragal amu fi te xamante nañu bu baax a baax ngeen may ma tamit ma insisté le cas de Bougane Gueye parce que je pense même qu'il y avait 13 ans l'année nekkoon Tambacounda maa ngi woon Tambacounda en 2005 j'ai fait quasiment toutes les prisons de ce pays xam naa camp pénal xam naa Rebeuss te min naa Tamba suñ ma waxee tey que jël nañu Bougane Gueye Dany tëj ko ci benn cellule avec plus de 40 personnes j'interpelle directement le directeur de l'administration pénitentiaire leneen soxal xibaar yi di lii di bato bu mag bobé nga xamanté nak nag moy mooy patrouille Kayor daal nañu ko ko kon dippee di euh, tur boo xamante ni jox nañu ko gaal gu ngand googu nga xam te ni mu ngi ci waaxu suñum réew di euh, euh, wattu kaaraange ak saytu lépp lu jëm ci wàllum géej gi tur woowee nga xam ne nag daan nañu ko jox jóge ci ki nga xam ne moo di njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ni ki démb nag la ko doon ngénte foofee nag ki nga xam ne moo di capitaine de de de frégate di Marie Ndour nekk nag commandant bu boobu lépp flotte la Kayor gis na ne tur gi nga xam ne nii moom lañ ko tuddee ku ko dégg dégg rek euh, da ngay xam ne euh, lii di euh, jàmbaar ak kon ndëgër laay la àndal tax nag ba ñoom ci loolu la ñu fas yéene daal di dox ñu teew lu ay kàddoom yi mu dénk am satu gànnu cérémonie bi ñu boole woon tey mooy baptême mu Kayoor loolu dafa nekk moment boo xamante ne moment bu am solo la ci dundu bato bi gannaaw bi ñuy topp ay idéo yo, xamantene ne mom suñu bop moy njambar moy honneur bi nga xamné mom mo moo caractéristique ou ancien royaume du Sénégal lolo tax ñu tuddee ko kayor ndax inspiré équipage bi teewaayu président de la république du chef suprême des armées wone important importance cérémonie bi moo tamit ñoo ngi ko ci jaajëfal bu baax te di ko delloo njukkal bu ci cérémonie bi dina tamit euh, euh, jéem a saytu euh, loo xamante ne euh, force navale yi marine ñi walu wàllu euh, géej gi euh, ñom ci befan lañu paré pare pour def sen mission dina gis tamit li nga xamné mom moy jafé jafé marine nationale ci exécution sen mission bi Mom ñewam bi tay dina tax mu dem ak idée bu gëna lèr ci ci mën-mën bateau bi muy patrouilleur Kayor di bateau bo nga dafa am endurance bu rëy ci géej manam mën na nek ci géej yag fofu lol ci wàllum euh, sàmm gi la ñuy daal di nag dugg fële ca Tambacounda ñi nga xam ne nag ñoom ñooy euh, waa ceex Sud euh, bu Bayradé bu Sodagri ñoom nag li nga xam ne moo di seen ko wër gi ñu doon wër ci bërëb yi nga xam ne fa la ñuy sàmmee gis nañu ne daal jot na fu mu ne nii ñu daal di taxawal nag ab unité pastorale maanaam daal bërëb bu yaatoo yaatu boo xam ne nii ñax ma dina fa meññ bu baax a baax jur yi di fa mën a ñëw di fa lekkee ndax nag gis nañu ne jur gi liy wër ak déplacé wu ci zone bu nekk dinay jur yenn saay ay jafe-jafe ci diggante ñi nga xam ne ni ñoom ñooy euh, sàmmkat yi ak baykat yi te loolu nag bëgg nañu mu dakk bu ñu taxawee taxawale bi lépp unité pastorale ñu teew lu ci kii di euh, Abdou Ndiaye nekk chef d'antenne bu Sodagri ay kàddoom denk na ko suñu naataangoo Amadou Diallo. li tax bi ñuy tëgg projet bi dañoo seetu ne que région Tambacounda région Kolda ak Sédhiou ak Kédougou nekk na ci région yi nga xam ne xëy na même bu amee ay potentialité en tout cas dañuy xaymaandool régions yooyu dañoo am néew doole. donc composante yi bëri ñu fi def mais li nga xam ne mooy li ñu dajale tey jéem a xayma li projet bi defagum waxtaane ko c'est di koy séddoo daal di koy wesaar. Zamba zone de carrefour la waaye zone de refuge la aussi boo seetoo da ngay seet da ngay jóge Ferlo nag dañ fay jóge ñëw li préfet wax sànq Missirah koto euh, Missirah fële net euh, Sinthiou Malem ak euh, Koussanar la nga fay gis nag da ngay gis sax ñuy gor niim bi di leen jox ñu lekk. donc il faut que ci biir li ñuy liggéey. projet bi dafa fas yéene ñu def ligne de de de de transhumance yi ñuy def maanaam màng yi fi ñuy jaar ñu xam ne buñ jógee fële fii la ñuy jaar ba si fii bu ko defee ñu daal di koy organiser. que nekkul loo xam ne aussi loolu faut que nit ñi bàyyi ko xel ci plan d'occupation nekkul lu di koy bind dafa nekk leen ne fu ngeen di sàmmee fu ngeen di bay fa la sàmm yi di jaar ñu daal di koy waxtaane ba ñu ne d'accord lii yéen nga ko wax ba jubóo ci donc kon dañ ko tëral daal di koy matérialiser bu ko defee dina wàññi càcc gi dina wàññi conflit bu ko defee aussi dañu mën a jëm ci développement parce que li ci gën a am solo moom mooy li sànq préfet wax ci allocution jël en charge les préoccupations économiques et sociales il finit leur règle. la ñu dem ci daara ju euh, kaweji wax nak ci ñi nga xamanteni ñom ñoy euh, rassemblement euh, des enseignants vacataires des universités publiques du Sénégal ñom ñi nga xamne nak dajé dañu dem ak taskatu xabar yi ñom vacataires yoy nak lañu bëgg jamono ji moy ñu daal di leen nak recruter ndax nañu liggéeyee metti na ba jéggi dayo fu mu ne ni bëgg nañu ñu doon ay agent permanent yo xamanteni te liggéey dina gëna mëna ñong ci walu wowe tax nak ba lolu daal nañ ci nak sakku ci ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di njiit yi ñu daan di ci taxaw ci nu mu gën a gaawee ñu teewlu ci ki nga xam ni euh, moom mooy docteur euh, Pape Momar Fall ak ki di docteur Makhtar Diop dénk nañu seeni ay kàddu Mansour Diassé vacataire mooy ki nga xam ne euh, saa ñu ko soxlaa lañ koy woo mu ñëw jàngale waaye li ñu li ñu gis mooy li ñuy def loolu yëpp yenn saay duñ leen ko fay wala boog dañ leen ko yéex a fay léegi li tax loolu metti mooy euh, day indi ay njaxare ci biir kër yi parce que am ñoo xam ne loolu rek la ñu yaakaar te situation vacataires yi maa ngi koy wax sànq teg nañ fi ay loi yoo xam ne mooy tënk université yi ni ñu leen di doxalee ci wàllu njàngale waaye vacataires yi ci texte yi kenn waxu kenn waxul ci ñoom mais au moins tant que ñi ngi université di liggéey nañ leen jox seen àq nañ leen fay nangam. nañ leen fay euh, kañ loolu rek yaakaar naa ne bu ko vacataire amee euh, jéego bu rëy la. Euh, lijjanti mbir mi tamit dafay laaj ngay poser ay act yoo xam ne am na mbir yoo xam ne jarul xaarante parce que recrutement bi massif bi dafa doon lu yellu loo xam ne moo mën a dimbali université mu suuf le te lu li leen war a recruter nag mi ngi fi jàpp nañ ni lu possible la parce que séminaire bu ministre bi organisé woon pour li stabiliser université bi fa lañ tënkee ne. Euh, mën nañu recruter 1500 euh, dar daar ndax lolu dina bok ci li dimbali université bi mu am calendrier universitaire bu normal. foog ñu autre solution ci ni ñuy recruter université aussi recrutement bi ni ñu koy défé ci université yi foog ñu xolat ndax université dafa am lu ñuy wax autonomie autonomie bobu motax les instances ñu am habilitation di recruter mais gis nañ ne ci ni ñuy recruter am nay rek rek yu ci am transparence bi des na également ay lenteur mi ngi am. Euh, mbir yi aussi harmoniser wuñ ko ci université yi yëpp. ci ñoom la ñuy des euh, jàng mu kawe mi euh, gannaaw ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy vacataires yi ba ñuy yuuxook ñaxtu ci seen i jafe-jafe yi ñuy liggéeyee. jëwriñ gi ñu dénk wàllu wi nag daan na amal ab lël boo xam te ni doon nañ ci càmbara xëyër li nga xam ne moom moo di système LMD bi bañ ko dooree ba léegi fan la leen yóbbu ci wàllum njàng mu kawe mi bu weesoo lool nag moom jëwriñ ji daan na ñëwaat ci jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci ñenn ñi jot a am mbag ba noppi te seen orientation doon ay kon jafe-jafe waaye it yëkkateeti kàddu jëm ci bourse yi nga xam te nee nañu dañu ko wàññi lool nag daan na ko weddi ñu teewlu ci kii di Astou Sow ànd ak Ousmane Biteye jëwriñ bi ñu gàll wàllub jàng mi ci daar yu kawe ya moo daal di teewee ab ndaje foofee ca ndaje li nag lu ko wundu di rek saytuwaat lii di système LMD ba mën caa indi ay stratégie yu yees. jàngalekat yi seen bopp ñoom ñoo ne ñun lii ñuy jàngalee bëgg nañ saytul ko suñu bopp pour xam ndëgëm baax na wala baaxul. dañ fi fekk itam système boo xam ne bi ma ñëwee ba léegi maa ngi ciy wax. wax laa wax naa sama chantier numéro 1 moy fexé ba ñu am date bu école di tijji ak date bo xamné ci l'école école di tëj loolu le fait que amuñu ko ba légui dafa dérégler système. ndaje lii itam ab proxndol ngir jëwriñ gi mën addu ci wàllu orientation nongo yi muy xam li ni fànn woowee amuñu ci ben jafé jafé ndax témèr bo jël fukki ak ñent dong lañ orienté gul. bo né orienté na 86 le 19 septembre xam nga ni amna 14 yu la déssé mais 14 yoy pour nga mën leen orienter il faut nga terminer première liste bi xam ku inscrire ak ku inscrirewul nga defaat deuxième orientation bi. ministre bi yokk ci ne bourse yi ak it rappel yi jur coow ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar dinañ ko daal di fay ci ni mu gën a gaawee. étudiants yi dégg naa ñu bëri di wax naan dañu wàññi seen bourse ñeneen di wax naan dañu leen waroon fay seen bourse ay rappel te fayuñu leen ko may wax ne ñi di wax loolu ñoom wóor na leen wóor ne li ñuy wax amul donc amul benn étudiant bu ñu wàññi boursam waxuñu aussi ne rappel dañ leen koy duñ leen ko fay li xew mooy dañu toll ci weer boo xam dafa metti ci finance état. bu jeexee dinañu résultat yu système LMD boobule ci suñu université fañ doon càmbaree nag li nga xam ne moom moo di système LMD bi foofu nag ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci uh, wàllum njàng mu kawe mi ñoo fa dajaloo woon foofu nag daan nañu fa yëkkati li jëm ci li nga xam ne mooy jafe yu am uh, ci diggante uh, nguur gi ak syndicat bi nga xam ni moom moo ngàlloo li jëm ci wàllum njàng meek njàngale mi di SAES foofee nag kii di xam ki nga xam ne moom mooy jëwriñ gi ñu dénk lu ni mel daan na gis ne daal lu jëm nag ci seen waxtaan mu ngi woy kon nag

ak SAES ci loolu parce que dafa doon ñoo xam ne ñu ngi waxtaan ak ñoom waaye li xew mooy SAES dafa négocier ak gouvernement bi nga xam ne moo ñu jiitu benn décret boo xam ne dafa am solo mhm. décret bi li mu amee solo mooy euh, professeur université bi bu génnee àdduna li nga xam ne moom la ñuy fay soxnaam wala jëkkëram bi mu fi bàyyi dafay néew lool ñoom ñu négocier ba nga xam ne ku ci génn àdduna li ñuy fay sa veuve wala sa veuf dina doon lu xaw a am solo ñu négocier ko ak gouvernement bële ba nangu ko le 28 février un mois avant élection présidentielle bi ñu signé ko adopté ko en conseil des ministres. lu bëri dafa xew ci weer yi passé ak l'ancien régime décret boobu dafa réer décret bu amee solo noonu ñu ne dafa réer sayes e mii ko nga xam ne moo ko négocier, gisu ko ñun ministre de l'Enseignement supérieur gisuñu ko secrétaire général de la présidence gisu ko secrétaire général du gouvernement gisu ko mais loolu ñun du suñu faute té SAES xam na du suñu faute biñ ñu ko waxee wax waxu décret bi tok na ñetti wër yo xam ne fu nek bind nañ fa pour cette décret bi gisuñu ko leneen soxal xibaar yi juróom fukki at gannaaw ba ñu ko sancee ba léegi ñi nga xam ne nag ñoom ñooy euh, jigéen yi yëngu ci wàllum yoon di AGS daan nañu ko euh, màggal nag niki démb fësal fa li nga xam te ni moom la ñu fas yéene def jëm ci xeex ak ak yelleefu ñi di euh, soxna yi ak xale yi ñuy fàttali ne rek ñu ngi ko sancoon ci atum 1974 am lu baree bari loo xam nii liggéey nañu ko dëxëñ nañu ko nag ci bés bi ñu doon saytu wàll wi ak fan la ñu jëmee ëllëg seen xeex bi nga xam nii si la ñu nekk ba jamono ji ñu toll nii kii di Aïssatou Ba lañ ci àndal la kuréel bi nga xamante ni moo ëmb jigéen juriste yu Sénégal di màggal juróomi fukki at gannaaw bi nga xamante ne taxaw na. suñu association ndax am na juróom fukki at ren 1974 lañ ko sosoon ba léegi mu juróom fukki at. te ba muy jël kàddu nag moom mi nga xamante ne moom mooy njiitu bile kuréel daal di nay ñëwaat fàttali jéego yi nga xamante ne association bile matal na ko fii ci Sénégal. léegi nag ñun nag li ñu def defe naa yàgg nañ koo wax. ndax du tay la ñu njëkk a laaj ci loolu yàgg nañ ko wax ndax li nga xam ne moom moo mujj mooy euh, loi bi nga xam ne moo criminalisé viol ak pédophilie maanaam sàkku jigéen ak sàkku xaleel def nañ liggéey nañ ci parité ak yeneen association liggéey nañ ci loi sur la nationalité def nañ loi bi ñuy wax équité fiscale ba nga xamante ne léegi jigéen ak góor bu ñu leen di euh, kii fayloo lempo ñoo ci yem ki nga xamante ni itam moom mooy jëwriñ bi ñu dénk wàllub yoon di Ousmane Diagne teewoon na ci bile daje ba muy jël kàddu nag xamle na ne association bii di AGS amal na ay liggéey yu am solo fii ci mën nañu wax nii am na ay jéego yu am solo ñu def ci wàllum yoon fi de ci Sénégal li jëm nag ci wàllu jigéen ñi li jëm seen aax ak seen yelleef ak li nga xamante ne nii moo jëm ci seen wàllum njàng ak i tamit ñu mën leen tollale doon na daal ay mbir yoo xamante ne nii daanaka réalisé nañ ko buñ ko mënee wax noonu may xam nag man mi nga xamante ne maay jëriñ gi nañ ko wàllum yoon naa def sama kéemtulaay kàttan ba bi leen mbir ñu mën kàkku

Euh, waaw nekk nañu kuréel bi nga xamante ni dañuy xeex euh, euh, ngir ak ak yelleefu doomu aadama yi a fas yéene jàppale bépp association bi nga xamante ni yaa ngi fii si biir Sénégal li ci mel ni AJS moo nekk kuréel bi nga xamante ni moo ëmb juriste yu nekk fii ci Sénégal te am na mbexte lool ci liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy amal fii ci biir réew mi ak gën naa bañ ko sosee ak léegi. un travail euh, euh, extraordinaire. ñu wax nag ci euh, leneen la it lu soxal soxna yi xam ngeen ne nag ñu ngi ci octobre ba léegi nag ñuy xeex li nga xam ne ni moom moo di euh, cancer du sein ak du col de l'utérus tax nag ba campagne de sensibilisation maanaam gën a ñaax ñi di soxna yi ak lu jëm ci wàllum dépistage euh, ci cancer du sein ak du col de l'utérus daan nañu ko amal nag ci talaata ji ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru octobre. Euh, jóge nak ci ligue sénégalaise contre le cancer ñom ñooñee nak daal nañu ànd le colloque amical des femmes euh, du ministère de la jeunesse ak de la culture ki ko jiite nak di ki nga xam te ni Diène Gaye mom fekke won lu mel mom bolé na ak li nga xamné ne moo di sport euh, kon taxna ba amal nañu bi lépp cérémonie ko ko di Ndéla ñay andon na Serigne cancer di doomu jàngoro buy lore tey law ci àdduna wérngel képp buñ sukkandikoo ci lim bu takku bi lee nga xamante ne ñi lee di xeex wàllum cancer ci biir senegal di waa Liska daal dinañ koy joxe naka noonee nag njiitalu kuréel boobee nag daal nay dellu ci ci liy joxe doomu jàngoro bi lee. ces fruits wala ay engrais chimique nekk na lu joxe cancer rawatina cancer de la prostate nga xam ne dafay jàpp góor ñi moo tax nag ngeen war kaa moytu waaye tamit nit ñi war nañoo moytu lépp li nga xamante ni sàngara la wala bépp xeetu cigarette ngir ñu mën a ci biir feebar ndax nag li ni mel day joxe li nga xamante ni moo nekk à cancer. pour de la survenue de tous les cancers. jëwriñ biñu denk walum wàllum tagat yaram adak ciosan mu ngi sakku ci ñu gëna a fagaru daal di ñaaxaat askan wi ñu dem saytu ji seen wérgu yaram maanaam defi ay dépistage ngir ñu fay jëlé doomu jangoro bi lé sama bokk jigeen yi fi tew ay mbokk jigeen Sénégal yépp ak fépp ci aduna bi nañu fagaru. te fas yéene jóg xeex feebar bi xeex bi nak nañ ko njëkkee ci fagaru bi may la prévention buñu ñu octobre rose ku am sa temps wala yàlla may nañu xëj na benn prise en charge fonctionnaires yi am nañu seen imputation budgétaire lu mu métti métti boo ko yóbboo ci structure publique yi xëj na mun nga bénéficier wu d'une réduction mu mun la defal sa dépistage. Fatma Mbeng doon ko amoon doomu jàngoro bi lay di cancer waaye ak ndimbalu waa Liska moom moomee naka daal dinay faju ba wér-kii nga. une fois maintenant qu'on a découvert vraiment la maladie waaw man nag euh, feebar bi ba mu feeñee ci man commencé woon naa traitement bi waaye dama demoon ba ci ay jamono nga xam ne mënatuma woon financé li nga xamante ni moo nekkoon traitement bi a ah, problème bi nag ma daal di ko expliquer sama médecin traitant docteur Diouf mu daal di ma boole ak waa LISCA ci atum 2020 ñu may suivre jël ma en charge ba ci atum 2021 ñu d'aldi ma defal li nga xamanteni mo nek opération bi ba tay ci nak fi ma taxaw ni ma ngi sant yalla bu baax baax. travail et autres j'ai eu mon intervention. donc je rappelle juste les artistes qui nga xam Ndella Ndiaye jërëjëf fagaroo gën faju yal nañu yàlla musal kon ci ah, lu ni mel te di ko ñaanal képp koo xam ne yaa ngi seetaan jamono ji di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam te ni ñoom ñoo ah, fare ci wàllu machine bi rédaction bi fàttewuñu leen yéen ñi nga xam ne yéen a safoo ah, global télévision xam leen ne seen kóol te mooy lu ñu sagal saa su nekk di ñaan borom bi nga xam ne dara teew ko mu aar ñu làqu ñu fa yàq yeggul yéen doog jàmm